mu jóge si dëkk bi. muy mooy politique. mooy politique. waaw na fi dem Mbacke. doo ko de. ñu a wotee si biir dëkk bi. a réunion si biir dëkk bi. bañ a réunion si biir dëkk bi bañ fee wotee. incha allahu Mbacke. bu soobee yàlla dañ koy ànd ak ñoom. jàppale leen ñu jàppale leen ba lépp tege mu jóge si dëkk bi. mooy mooy politique. mooy politique. waaw na fi dem doo ko fi de. ñu bañ a wotee si biir dëkk bi. bañ a réunion si biir dëkk bi. bañ a réunion si biir dëkk bi bañ fee wotee. dañ koy ànd ak lépp tege si. aywa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk ba jaadilhum hiya ahsan ñu ngi leen di nuyu xam naa vidéo bi dañ ci dellu si waat gi wallahi yërëm naa wallahi yërëm naa ko parce que koo xam na dañ la ñii ne diina lañ la fale te doo defal diina dara politique guddi politique jëkk xam naa ñoom li ñuy kaas buñ ko buñ leen ko mayee kon nag nañ ko nangul Casamance it mooy indépendance parce que Touba liñ bëgg mooy yor seen réewum bopp dafa mel ni nekkul bi Sénégal lan lañ def ba lan leen defal Sénégal ba Sonkorong defaruñ ko Sénégal ba tax Touba kenn du fa woote te Sonkorong ñu fay woote lii ab laaj la ah xam ne ñoo jiite ñii dañ ci dañ ci responsable ci ñii waa Touba ñii fañ jëm fañ jëm du baax de toog nañ fii moom mii nee na ku fi nekkul lu wuute njàngale seen mi ñu toj sa kër. moom wax na ko nee na Touba ku fa def lu wuute njàngale sëñ bi ñu toj ci kër pourtant maamam yii muy wax ni maamam daanu ko wax bu ma demee ba yowmal xiyaam bu ma amee ngërmande yàlla te ama ngërmande sama sëriñ du ma am lu ma neex bàyyam ne mosul wax te bàyyam mosul dugg ci politique dafa demoon génn ci dëkk yu mag yi di jàng jàngale lañ ko xamee moom mosul jàngale kan moom mës a jël benn masala boo xam ne ci moom ko gàggate woo xasaayid di looloo ñu doy yii lay nekk di wax nit ñi jotaay bii wax na fi ba jóge fi déggloo benn mu ne yàlla neen yonent bi nee na défendre koom-koomu adduna rek te loolu na xam ne da ko fi bàyyi wallahi dana fi bàyyi koom-koom bi dem keneen ka koy wuti dana fi bàyyi dem dana fi bàyyi koom-koom bi dem waaye nit ñi war a yeewu ñii seen bopp lañ fi nekkal nekk luñ fi diine wallahi bu doon la seen maam nekkoon sax nga ne mu tane di jàngal nit ñi am na ay njuumte yoo xam ne mag ñi am nañ ko waaye lañ juum nañ leen ko ñaanal jéggal dafa des lañ jubal ñi ñaan yàlla nangul leen ko waaye ñii lan lañ defal diine lan lañ defal diine politiciens yu mag lañ maanaam lii yëpp ci carte gi la bokk rek di lëndëmal bët nit ñi waaye yàlla moom mënuñ ko nëbbu Tuuba ak luñ fa mënta def fekk ñu ngi fay bàyyi bokkaale yàlla gii du dem dëkk boko ko bëggee defar da koy defar ci njàngale li yalla wax lu yonent bi wax bañu toj stade ba ñu ne dañ koy toj ngir xalé kën du football mëna na ne dañ ko tabaxat parce que li ñuy ji ci dënnu xalé yi mooy bokkaale yàlla te loolu buñ ko ci defee xalé yi danañ tabaxaat stade li fi mëna a mbon gi moy jàngal nit ñi li yalla wax lu yonent bi wax ku ko deful da ngay sonn rek coono bi li ñu nekkee ni coono la rek coono alalu aduna rek mo leen jaral li di wax loo xam ne dara du ci mbir yàlla seen bopp rek man dama ko yërëm wallahi dama ko yërëm quoi bu dee fu ne lan la lan la liggéey ci liñ ko fi teg nii na koy diine nga nekk lan la fi liggéey koo gis na ma ko wax benn mbir boo xam ne mas na ko def bu ma ñëw naan milliards yi may joxe loolu xaalis yi nit ñi lañ jël ci carte gi del la ko joxaat nit ñi carte nit ñi la nit ñi lañ woo kenn ku nit ñi dajale na sama baay gën sa baay joxel nangam lii rek la amul leneen mais du diine du diine lan la defal diinu lislaam sëriñ biñ ko xamee li may defal diinu lislaam mooy jàngale di fi yonent bi bàyyi woon ndond yonent bi liñ ko doon ne mooy xam-xam du alal borom xam-xam yi koy jottali jaam yàlla yi kii ban masala la mas a fii lan la mas a lu yàlla wax yonent bi wax foo ko déggee titre foncier dëkkam lay wax kër gi nañ ko gën dëkk bi nañ ko gën a yokk xaalis biñ ma jox kasa ba kasa lii lay liggéey amul leneen amul leneen li muy def ñeneen ñi mel ni moom di ko dajaleel affaire bokk ak ñoom carte gi ñu ko indil ay million na ko almet gaa ngi ni bu la neexee sa kosal muy sëgg di reetaan waa kii wala yërëm naa ko xam naa danañ ci dal ci waat ci audio bi mais Sénégal ñoo war a yeewu ci tappale ak caaxaan yi sëriñ ci di leen këlli këllee ki gën ci nit ñi mooy ki gën a régal yàlla ku bëgg aduna demal jaamu ji yàlla demal demal demal liggéey ku bëgg a dem ajana da ngay jaamu yàlla te doo ko bokkaale ñoom ci jaamu yàlla ci bokkaale liñ dëkk xoolal Modou Karaam yi taxaw fi Sëñ Tuubaa sàkk yàlla kenn waxu ko dara dëkk boobu nu muy def fa avancé ah Bass Abdou Khadir fii la taxaw ne bu ngeen ñëwee dem leen sama bàmmeelu sama bàmmeelu baay sama bàmmeelu ñaan Sëñ Tuubaa lu ngeen fa ñaan mu nangu ñëw leen ñaan ko lu ko ñaan moom defal leen ko di xër nit ci bokkaale yàlla te dem di ñaan seen maam ah bët bu set ñaa ngi fay dem di ñaan seen sëriñ si ci bàmmeel yi sëriñ si senegal dama ne ñoom ñàkk nañu wërsëg de ndax kenn du leen ñaanal ñoo fay dem yëpp dañ leen di ñaan te ñoom ñu ngi koy xam duñ leen ko tere seen ndaje yi kenn du ko ci wax parce que lu tax xaalis bañ leen fay sànni la tax xam naa teel na dañoo doog a jóg fajar gi ni waaye naqat lañ am rek ak tiitaange ci réew mi fi mu jëm ndax ñii ñi wax nañoo jiit diine ji bu dee lii wallahi ku tiitul amuloo tiitukaay fi mu jëm de nee naa leen politiciens gën xalifa général yi fuuf parce que ñoom politique lañ leen fa tegee waaye ñii ñii diine lañ leen fa tegoon waaye gis nga li ñuy def politiciens neen tane fukki ñoo leen gën fukki junni yoon li yàqu ci diine yi ñii ñoo ko yàq wallahi waaw maam ah waaw fii de mu ngi taw maam nag xam naa ne dimbale ma rek man ma dem xam nga yow da bari jot man damaa xaw a ñàkk jot yow yow jàngale bi kese ngay yem ni jàngale rek yem ci man dafa am yeneen yu ma nekk damay xarmat wala ko di xarmat sa soldaaru suñu borom la di liggéeyal suñu borom ak yeneen i mbir nag yu bëree bëree bëri bëri waaw Saalum bayu ma de waaye maa ngi jàppale sama mbokk yi bay nag wax dëgg yàlla leen di jàppale si lu ma mën ci li ma xamit maa ngi leen koy wax di leen woo nag ci diine yàlla ji wax leen ne bu ngeen bàyyee bu leen ko jox sëriñ ci lii ñuy wooyee sëriñ du sëriñ bët bu set ma wax leen ko lii dafa niroog sëriñ mais du sëriñ alaaji Omar Ndaw bi ñuy jege bët bu set moo ko moo jàngal sama baay beroon ko ba paa jóge fa ñëw sanc ñëw dëkk ci Sonkorong yore daaram di jàngale ak bay ellu yëpp ak bay Omar Bombe ñëpp ci sëriñ daara yi lañ génn di jàngale lii moo amoon ñun moom lañ xamoon ci sëriñ bu ndeer wàccee nga jël sa doxob joxob gudd booy nuy ji sëriñ ba nga jël sa doxob joxob dugub teg ci sareet gi dem boo demee nuyuwaale ko ko bu fekkee njekk nga jeexal mbay sëriñ bi nga dem mbayi ko ngondal wala nga may ko xëy lii lañ xamoon ci sëriñ waaye sëriñ bi takk rajo kaay leen joxe hadiya mooy maye kaay leen joxe hadiya maanaam mooy xat kaay leen joxe kaay leen ziyaare wax leen li ngeen di ziyaare ci ban ci lislaam moo wax ne kaay leen ziyaare ma nangam am na te loolu mu ngi fees dell ci li ñuy wax sëriñ senegal kaay leen siyaare ma mboq kaay leen siyaare ma dugub kay leen siyaare ma ceeb ak ak muudaake ganaar ak lépp lii sëriñ saa ngi koy def lépp nit ñaa ngi cee teg seen bët di arnaqué nit ñi ci diina ci du diina arnaqué nañ ñëpp ah fii lañ jéggi sëñ bas mun ne këram gi bu tey doon démb du ko du ko du kon du ko du ko jënd ma ne ko jaay ko Saalum am na murid yu fa nekk ñoo xam ne ci li ñu leen ko joxoon ci lañ bokk seen dispensaire bu baax sax amuñu ko dem dimbali leen ci bu xool kenn am na ñu fa nekk ñoo xam ne bu nawet bi jotee duñ am luñ lekk dañuy dem jéggi ah ñaar bala ngay def weer am na ñoo xam ne seen seen sàq mu fëggu na ñu dem di jéggi ñu doo dem jox jox leen ay saako dugub ak ceeb na leen li ma jëloon ci yéen de wax dëgg yàlla jëluma ko woon ci dama ko jëloon ci turu diine waaye man doxalu ma woon diine maa ngi maa ngi leen di jégalu am leen dem tuub sa kanam sa borom ku ñëw nga ne ko damay man dama doon damay jàngale léegi sama benn waay nee na ma bi mu nekkee ci yoon boobu ba bàyyi tiijaan gi dafa nekkoon nag ci ak woyu bàyyi ko daje tiijaan nee na mu daje na tiijaan mu yaakaar ne yegg na bi mu demee ba gis sunna nag mu commencé di di di di di nag dem ba gëstu nag bay jàng comme jàngoon na alxuraan muy jàngal ay xale nee na dafay am ay xaritam yu ko nekk naan waaye yéen seen sëriñ daara bii kii moo doon diw munu leen la ma neexoon banaa ko li sama kanam rek laa teg nje ba fekk bala may faatu ci sunna bii laay faatu nit ku baax noonu la war a def génn ci tele yi di wax ak nit ñi waaye koo xam ne boo génnee ci tele bi bu Sénégal yëpp doon dee sax doo génn sa xew-xew maam rek li mooy sëriñ lii du sëriñ seeni maam yi sax xamuñu woon lii waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ah, Chafi man de maa ngi doon bëgg nelaw sax déglu sa bi waaw sëñ bi waaw loolu de si xeetu njàngale yi la maanaam docteur di jàngale li nga war a jàngale rek waa ji di déglu bu yàggee dana xam ne lim nekkoon ay caaxaanta mu ngi mel ni benn sikkër booy wax rek di ko wax bu yàggee booy ba fay toog sax da koy mokkal loolu tam jàngale la waaye dañoo toll fu ne ci bërëb yoo xam ne ci whatsapp ni ñëwee li ngay jàngale dañ ci teg ci baaraam duut ko ci ki ngay jàngal xam ko xam nga nit ñu bari senegal boole naan ay tasawuf xamuñ sax lan mooy tasawuf moo ne mutasawifoon xamuñu lan mooy mutasawifoon yi waaw léegi dangay ñëw nga ne ko nga ne leen suuf yi mooy mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci muriti ak yi ñoo ñu am seen tarixa boo xam ne dafa ñëw contre yoon bi yonent bi nekkoon loolu lañ ko mën a waxee ndax bu yonent bi ñëwee ne topp leen alquran na topp leen ko bu ngeen ko toppee jub ngeen wa in tuti'u tahtadu ñoom ñi ñëw kenn ko na rëdd ci peggam kon loolu da ngaa war a leeral nit ñi jëm ci baaraam loolu du toñ mais système mu njàngale la nga leen ziyaar de yonent bi sallallahu alayhi wa da ko jàngale woon waaye nag bii nii waa Daaru Salaam di leen di woo kenn dajale seen dugub ji Sonkorong Ndakaar kër Njàngaan ci Zakaymor Temple kër ko ñi ñëpp dajale seen dugub ji ngeen daje croisement firgi ña nekk boor ngeen sabax ak côté yooyu yëpp jalaku nag ñoom ñëpp ña dajee foofu def ko benn buum teglante di sikar ñii di film ngeen ba ci sëriñ bi jox ko fekk woote woon nañ nag mës nangam mooy siyaare ba ngeen yóbbu tey tey dugub la bu subaa ñu ne mboq bu gannaaw subaa ñu ne ganaar buñ ne ba ganaar jeex ñu ne leen indi leen cere ji woow pour taalibe bu ko defee jigéen ñi nga xam ne ñoom la sëriñ ba jur ñoom sant bu seer lañ yor te mënuñoo am ca dugub ja jël ay xandi dege yóbbu ko ci saalum na leen defal lañ ci xàdde dege yi pour sëriñ bi comme seen seen góor ñi dañuy jël dugub ji ak mboq ji ñoom ñu jël xàndi dugub dugal ko saalum jigéen ñi duyee leen ko ba mu fees bu ñu départ ak oto bi yónni bëkki néegi bu demee jël xàndi yi ñëw ba ñoore jaay ko def ci def fop xaalis ba ñëw jox leen ñu dugal seen poos toog yow nga toog fa baase bi ngay togg sax baase bi ngay togg doo am doo am benn dege boo ci def boo bu bu nawet ba commencé sori rek mbuumam nëxal loolu ñuy wax mbuumu nëxal moom la nit ñi di commencé togg wala ngay gis ñi def loolu ñu naan suuku nuuku jënd yoom man na moroom ka jël tiga du ko def ci tiga loolu la def liñ jëloon yëpp jox nañ ko sëriñ ci yow yor sareetu mbaam kii yor Mercedes dañoo di jol di nga xam nit ñi dañoo war a yeewu yu mel noonu nag nit ki bu nu jàngal nit ko na ko yàlla yonent bi dafa jàngale ne ziyaare lu baax la dem di ziyaare nit ba pare wàcc ko mu dem boo ko wàccee du ko xam waaye boo ko ne ziyaare nga jógee Sonkorong dem seeti waa Cissé ziyaare je fa mbokk yi fa nekk boo amee loo leen di jox bu dee guru la nga def ko ay ngàddu guru jox leen ko na maa leen ziyaare ci woon leen boo ko amoon nga toog fa ba ngoone wala nga toog fa une heure temps deux heures temps yàlla daf la ci dimbali yiw loolu mooy ziyaare nga dem ci hadiya boo ko tuddut hadiya fu ñu ko waxee rek baatu arab la waaye boo ko waxee rek ci xel dem ci murid yi nga ne leen hadiya am na yonent bi jàngale na ko mooy maye joxe cadeau yonent bi na ko waaye kaay leen jox ma ko loolu lañ xamut te ñoom lañ wax da dem sax ñu ne kaay leen joxe hadiya ci rajo bi kaay leen joxe balaa muy gën a xat nit ñi di buuxante di dem man nit ñi seen xel yi la seen ci jël leem ko toog ci wàcc leen ñuy tëjax tëjax yooyu nag yooyu nit ki. xam ko faw nga dut ci baaraam wan ko ko parce que Saalum lii lay xewee Saalum lay xewe fu ne dañoo installé maanaam ni nga gis parti politicien yi naan yaa fi toogal parti bi yaay nekk seen député noonu la ñuy def jël fu ne ñu planté fa benn waaye na ko yow yaa fi nekkal sëñ bi waaw kooku bu ko defee ñu koy compal mu yóbbu moom itam di nax ni ñi di leen dajale semaine bu jot bu dajale ni ñi ne kaay nañu jàng bu ko defee seen xel di ci nekk dugub ji bu commencé palpal ñu naan leen kenn ku ne na indi nangam di leen nax ci loo xam ne du diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul lenn lum jàngale ci diine lu metti waaye li sëriñ yi jàngal nii tarix yii lii ñi muy murid ci tijaani liñ jàngale lépp métti da nga bay da nga gor oto bi romb nga daw topp ci di fanaan ci biti doo sol dàll doo sol lu baax sëriñ baa ngi troisième étage doomam ji bu la joxee loxo loxo yi day noonu népp yow yaa ngi gor ba sa loxo yi wow koog lii mooy diine du diine dañ leen nax rek loolu nag boo ko bëggee jàngal nit ñi faw nga leeral ko ñu ngi jéglu nag baat bi dañoo demoon bay tëdd aywa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw sëñ Mourtada man nag bokk ak yow nit ñi xam nga yéen eh, ñiy wax sëriñ ci laa yaakaar àdduna ak àllaaxira ñooñu bi ñuy liggéey bu leen sëriñ bi gisut duñu fayeku man ki may liggéeyal bu yéene bi sellee ne moom ngay liggéeyal yal nañu ko yàlla defal ci ñu yéene yëpp mooy caaxaan nekk senegal li ñuy wooye sëriñ te du sëriñ ñu joge fa nit ñi yeewu xam ko ñëpp nekk ci benn bu ko defee tarixe yi dootuñ dootuñ xaajale nit ñi ndax ñoom ñoo xaajale jullit yi genn kër ngay bokk nga dugg ci néeg bii kii ngi wekk fotob sëriñu tu Touba waa Touba ki kii ngi wekk sëriñu Tiwaawan kon ñu ngi xumaa xaajale jullit yi murit bi bu la ko waxee bu la ko waxoon moog tijaan bi ku ci dugg ci benn saal te xamagula waa ji lu mu doon nga nga dugg rek fekk fa benn photo boo xam ne bokk rek si sëriñ dana am loo yëg ci sa xol bi ñooñu nag ñoo ñoo tasaare ñoo tasaare jullit yi man loolu mooy sama xeex mooy ba jullit yi nekk benn kenn ku ne la liggéey boo ko amee nga am foo koy dugal fi la bi sallallahu alayhi wasallam ko yàlla digle yonent bi jàngal ñu ko waaye ñooñu nanguwuñ ko man looloo ma tax a jóg kon man sama ojo moom lama la mosoon naa ko fi bu yàgg benn waay dafa am genn góor gu ma nekkatoon bu toggaan moom nee na moom bu toggee bu nit ñi lekkut moom day yaakaar ne da nga suur rek boo teelee jóg naan li mu togg neex na ak neexut mu ne dafa yaakaar ne suur rek man moom sama ojo moom du ma xool sax naan nit liir na ko liir ko déedéet man yàlla lay liggéeyal <laughs> moom man ku liir yàlla dina ma fay ku liirut yàlla dina ma fay loolu waaw sama borom moo wax loolu de. mais maanaam li def bu yàlla taxee bu nit ñi liiree dañ la fay bu liiru dañ la fay waaw yéene bi na sell rek yal yàlla def ñu yéene bi sell kon ñun bokk ñoo yéen ngeen di doxalee ñun duñ taxaw nit bàyyi naa na jox naa la sama bopp adduna ak àllaaxira bu ko defee koo xam ne tappale ak caaxaan ci la nekkee di lekk xaalis ci taalib yi di lekk xaalis ci nguur gi ba Sénégal du mënta dem ñooñu dañ leen war a yéebaane wallahi senegal lii fekk lii ñuy wax sëriñ mu nga fa Sénégal du dem te buñ ko lijjantoon ba ñëpp ñi war a jàngale jàngale yow dangay dem ci dëkk sëriñ si ñi naan ñooy sëriñ léegi nga dem benn doomu sëriñ doo ko fekk muy jàngale ñi sant Cissé ñi sant Diop ñi sant Jaxate ñoom lañ jël na jàngale leen waaye lu tee ñoom ñi jël jiital leen ci diine ji ah waaye fële la xaalis bi nekk maay booy ñaanee te ñaan sax <laughs> maanaam koo ci bettoon na ko ni ñuy ñaanee xamul ko adaa bi ñaan xamuñu ko <laughs> seet të na sëriñ si niñ naxee nit ñi moo tax man waaye yéen nag seen waa ji moom yal na ko yàlla jubal rek dégg naa tey benn waaye mu wax dafa am nu mu génne mu ne mu ne dëkk bi li mu bëgg li ko gën a métti Tuubaa mooy politique ba ñu fay def ma ne ko dafa juum la ko fa gën la ko fa gën a métti mooy bokkaale yàlla gi loolu mooy cosaan bi bañ tojee stade bi ne génnee xale yi man leen xale yi dañ dañu utaan stade parce que buñ jàngalul nit ñi bu buñ tojee stade bi gune dañ ko tabax parce que mag ñi dañuy faatu te gune yee fay ñëw dañ ko tabax li gën mooy tabax ngëm yàlla ak ragal yàlla ci dënnu xale yi ñi dee bàyyi leen fi ñëw defar diina ji waaye xale su ndaw nga daje moom ci mbedd mu ngi yor këll fa benn photo sëriñ takk réew moo ko gis réew moom doxagut réew lu koy doxal mooy gone yi dañuy dem ci école yi di jàng mag ñi di liggéey amul kenn kuy liggéey di jox kenn waaye ponkal moo ne benn tubaab ñu ne kii lu muy def mun ne mu ne ñu ne du gor yet lu def mu ne waaw fu muy dundee mu ne ko taalibe yi koy jox mu ne taalibe ñoom xanaa seen bopp ndox newut ci Brescia gi am na tubaab bu ñëw fekk sëriñ bi toog mu ñëw na gars yi ana seen ana kàpp bi kàpp mooy patron mu ne ana seen kàpp bi mu ñu ne ko mu nga ne la ko wax moom la patron lañ rek ay patron lañ sëriñ si ay patron lañ amuñ leneen lu ñuy def fu mu ne nii dañoo sonn parce que borom sant yi cher yi daan ñëw Europe mënatuñ fi génne dara ndax WhatsApp bi moom raatale na Europe bi moom gis nga bu doon élection cento par cento la ko la ko sunna jël <laughs> nekk leen foofu di wax rek nit ñi dem nañ ñoom ñëpp dundi sunna ngeen nekk foofu di taxawaalu beneen <laughs> bi maam maam yow aji bu guddee wàcc ko fi rek dem bul ko déglu <laughs> bul ko déglu gis nga bu guddee bul ko déglu man moom ojob tiijaan wala murit moom yàlla xam na ne une minute duma ko ci déglu noonu ngay def rek man moom noonu laay doxale man man moom tiijaan wala murit nga boo dugalee sa ojo bu matee une minute du ma ko déglu waaw parce que lam lay wax même bu leen yàlla ne ne yonent bi nee na gëmut ko nit ku ñemee taxaw naan yàlla laa ya diw laa yaakaar adduna ak àllaaxira sa sëriñ ki ngay ki ngay taxaw naan moom nga yaakaar adduna ak àllaaxira boo amee ngërmande yàlla te amul ngërmande sëriñam du am lu ko neex kooku xam nga ne waxam jarul nekk di déglu te bu la waxee tey dëgg suba da nga dajeeg wax lu dëgg woo xam ne kenn xamul nu mu toll golo du ko yàq ci tool ndem billahi nañ dem ba kanam suñu borom da ngeen xam ne li ma leen di wax dëgg la wallahi tasawuf lim yàq ci lim yàq ci réew mi billahi golo du ko yàq ci tool nañ dem rek ba yow man xam yëf yi foofu la leera ji jël ay doomi jàmbur nax leen xaalisu Sénégal bi yëpp ñoo ko lekk te lekkuñ ko ci dara jàngalewuñ defuñu dara yor seeni oto takk ay soxna nekk fii di nax nit ñi lii rek lañ nekkee nekkewuñ lenn seeni bàyyi dañ doon jàng ba pare di jàngale nangul nañ leen ko ku ne xam na ne mag ña fa nekkoon doon nañ jàngale am na nag ay njuumte ñu def loolu lu ñu war fu ne mooy nañ leen ñaanal jéggal te lañ nangu lañ lañ jubal ñi ñaanal leen yàlla nangul leen ko lañ juum ñi ñaanal leen yàlla mu jéggal leen ko waaye ñu ne déedéet yaa gën kii yaa ki kii kee nga naan xar mi xar mi yàlla la ñee nga naan buñ lalee seen malaan mi yonent bi day ñëw teew tarixa bi boo ci duggee sa sët sax du dugg safara ñee nga naan doo julli doo woo ñu ne jagle la réew mu mel noonu fu ñu jëm fan nañ jëm nga bàyyi taw tawhid yàlla wéetal yàlla bi ñu wàcc ko fa ah sëriñ bala mooy ñëw saalum ñun ñun daanuñ buum ngoon ci àll bi kala dañ ko faral wàcc cokkeer yi sax si boo leen dàqaan ñàkku ci kala ji lañ naan ruut bi sëriñ ñëwee saalum la barke yëpp dem ñii may wax ni ñi dëkk saalum xam nañ xamoon nañ ci tar jaamal gële boo ko daan jub da ngay ni muy riiree fu ne gune yi nekk Grand Yoff Cité Millionnaire di waañaan yëpp jaamal lañ dëkk ah saalum googu yëpp jàngal ak ñëpp ngay waañaan parce que bu ñu lay jàngal lañ lay jëkk jàngal boo jàngee da ngay jàng xaw ma lasaraar dande da ngay jàngaat lasaraar teg si bu la jàngalee ba pare dëgg ba nga war a dem ñu téele si mbubb bi ne kaay jàngale caaxaan teg si fu ni ñu di demee réew mi du dem de feeg lii ñuy wax sëriñ mu ngi fi man de ma fekkee ma ñàkk a fekkee yàlla xam na ne lii du dem li koy dindi mooy ku am fulla ak dañ ñëw jaar leen nit ñi si yoon teg leen si yoon kii jàng jàngale kenn laa ko fi gisoon kenn laa ko fi doon gis bu doon xënc loolu mooy yaay jàmme kenn du fi def ñaari korité ku koy def na ko defee sa dëkk waaye du fi président yal na yàlla boole ñu gindi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki wa jaadilhum billati assan ahsan ñu ngi leen di nuyu ci di ñëwaat ci vidéo bi xam ne ki ñuy wax ne mooy xalifa général ñu wax ne nag moo fi toogal diine. ñu ne si ñi fi toogal diina la bokk euh, te bi mu fi toogee ba léegi kenn mosul dégg mu ne yàlla na ne yonent bi nee na loolu gàcce la arrière la goo xam ne ne diine l'islam mu ngi koy arrière Sénégal bu ñu demee ba xam ne ñii lañ wax ne ñoo jiite nit ñi ci diine te duñ jàngal nit ñi tëdd fañ tëdd bu ñu génnee rek seen waxum intérêt moo doon tax a génn ñoom politiciens leen ay politiciens yu mag lañ bu buñ amoon sens nag motax man dama ko yeureum wallahi ak ñeneen ñu melni mom dama leen yeureum ndax possibility bi leen yàlla defal ñi wàcc ko fa lolu ko xelu ku ne bu le yàlla defale lolu dang koy exploiter moy bo laaje bo woyé télé ñëw bo woyé radio ñëw bo waxe nit ñi déglu la nga wo leen ci yoonu yàlla bu ko defé di nga am jàmmi aduna ak jàmmi al-akhirah waye lolu yëpp shaytané ñëw mur seen bëdi bëgg suñ ko bu ko defé ne ànd ak ñeneen waye nak benn mbokk waxon na mako bu yàgg afa muy tok non na ma gis nga khalifa bi moom bu ñëwee mooy gën a garaaw dana murid yi dañ ci am gàcc yu baree bëri bëri parce que lu tax mooy moom daanukat la te gis naa ay murid yoo xam ne wax dëgg yàlla moom li muy wax wax yu bokkale yi muy wax d'accorduñ ci ñu bëree bëri bëri ñu ma xam parce am naa samay xarit am naa samay xarit yoo xam ne ci murid yi lii muy wax nii ñoom d'accorduñ ci jékki ba mu yàgg mu naan bu ma demee ba yowmal xiyaam bu ma amee ngërmande yàlla te aw ma ngërmande sama sëriñ du ma am lu ma neex kan mooy dem ba yowmal xiyam da am ngërmande yàlla di di xaar ngërmal keneen xam nga loolu mooy wax loo xam ne waxu daanu sare dan képp koo xam ne ne yaa ngi wax loolu jàpp naa ne képp koo xam ne képp koo xam ne yaa ngi xelu boo demee ba yowmal xiyam ngërmande suñu borom ngay wër moom nag dégg ngeen li mu wax kon am na ñoo xam ne sax ñoom d'accord uñ ci loolu te itam ci toogaayam bii ci la toog ci la gën a ñaax nit ñi wax yooyu muy wax ci la nit ñi gën a dugg sax di dem ci mbiru bokkaale di ko def moom moom mii gis nga bi mu toogee ci la Kara gën a firéeku ci la gën a taxawal càncaay gi mu doon def moom Kara di gën a wane boppam ñu bàyyi ko ay militaire muy def lu ko neex di dem ba yor fetalam di ko fetal ci mbedd mi te kenn wóor ko dara waa sunna ko ci yoroon paaka ci mbedd mi sax jàppale te ci kaso bi bi mu fi nekkee la gis ay nit yoo xam ne nii moom ci xalifam xalifa bii mu toog nii bi mu fi nekkee ci la gis ay nit ñoo xam ne taxaw génn ci rajo publier ne ñoom danañ gis ay ñoo xam ne ay jàngalakati alquran lañ ñuy dund sunna lañ nekk ca ngaaba mu ne dañ daan dem dal seen kaw te waxul ci yeew ci yàbbi si lu tax mooy moo njëkkoon wax ne képp koo xam ne nii def nga loo xam ne Touba dëpp dëpp da njàngale sëñ bi dañuy toj sa kër kon jàngale alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi moom dafa wax ne dëppoo rek njàngale maamam ku ko def bu toj sa kër lool la tojee kër jàmbur yi am nañ ay mbokk yu ñu xam yoo xam ne Touba ñu toj seen kër génne leen fa ci xalif ci jamono bi mu toogee la te yooyu yëpp du ci wax dara waaye moom dama wax ne moom ci boppam wallahi bu Serigne Touba dellu si waatoon dana ko génnee Touba ndax lii muy jëmbat ca dëkk ba maamam xalaatut koon moom liggéeyam mooy dajj ay taabal liggéeyam mooy dem ba Touba du bokkati ci senegal dem ba Touba lu muy am sonkorom du ko am te Touba ci biir Sénégal la bokk dañ ko war a def loi bi am senegal droit bi am Touba dafa war a am Sonkorong bi am Sonkorong am Touba tax ñoom ñaar ñoo am ñoom am ñoom même légalité ñoo ko ñoo ko war a tolloo Sénégal loi Sénégal lii la wax ne li ñuy jox Sonkorong moom la ñu war a jox Touba Touba dafa war a fay impo sa Sonkorong dafa war a fay impôt bu fekkente ne Touba def na kenn du fa def élection doo fa woote loolu gouvernement Sénégal moo war a taxaw décret boo xam ne dañuy dem assemblée nationale nit ñi woote ko ñu ne Touba kenn amatul sañ-sañ woote fa Sonko ngi ci dem kenn amul droit woote fa yii yëpp dafa war a leer waaye nag tarixa boo xam ne dañoo dem ba xam ne keccam mooy seen porte-parole am na benn bés damaa dégg mbër moomu génn ne mu ngay wax ma ne ko lii wallahi bu fi sëñ Tuubaa nekkoon jàngalekati alquran yi mu fi bawoon ñoom lay jël teg ci kanam te dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk yëpp naan xalifa général boo fa demee duñ jàngale tëdd nelaw lekk ganaar teel a tëdd moom mooy seen liggéey ña fay jàng mooy ña sant Cissé ña sant Diop ña sant Jaxase ña sant nangam ak nangam ña sant Cissé ñooñu la ñuy jël na leen dem leen ñàngale gu ne alquran waaye ñooy ñoo waroon jiite ci diine ñi jàng ba pare dem di jàngale ñoo ñoo war a jiite waaye ñoom buñ bépp gis nga Sénégal dem na fi bay tàkk lu na di am déggule leen ñi gën wax waaye seen intérêt bu kii rek ngay gën wax seen intérêt dong lañu fi nekkee amul leneen lu ñuy def loo xam ne yàlla tax lépp lu ñuy def lépp lu ñuy def seen intérêt la man góor gi yàlla xam na ne dama ko yërëm moo tax na ko waa Sénégal yëpp ñaanal lii mu nekkee nii mu jógee si bala mooy faatu ndax di wax waxu bokkaale ba pare di ci woo nit ñi di xërtal nit ñi ci bañ sunna bokk na ci ñi gën a bañ sunna ci kaw suuf moom mii xaalis yi muy jël di ko joxe xaalis yooyu du xaalisam xaalis yu ni ndax nit ñi la dajale leen ci turu sama baay gën sa baay joxe ko ba pare jël ko teg ko ci nit ñi jox ko nit loolu du xaalisam xaalis mooy li nga liggéey ñàkk ko teg ko waaye xaalis boo xam ne da nga dajale nit ñi def leen comme élection def fa ay parti parti fu ne nga teg fa sa benn responsable di jël xaalis yi ñu ko dajale bu bëree ñu indi sa bàmmeelu maam nga wàcc nit ñi naan dem leen dem ñaan borom bàmmeel ba bu leen wax ne leen ko sosal lii may bu ngeen demee ñaan leen bàmmeel ab Serigne Touba bi bu ngeen ko ñaanee seen soxla mu may leen ko te ñaan borom bàmmeel bokkaale yàlla la kon ñi ngi suuxal nit ñi si bokkaale te sëñ Bass Bass Bass moo ànd ba jox ko porte parole te kenn mësul génn wax Sénégal bi muy tàkk est ce que mës na génn wax te kilifa ak diine li ñu koy defee mooy mu dem wax ak président bu génnee même bu mekk bu fekkee mun a wax ak président ci kaw di ko di ko nasee ci kaw na wax ak président ci suuf génn wax ak population bi ci kaw na leen ragal leen yàlla dellu leen seen kër dal yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii la jàngaloon ci lii ak lii dal da delluwaat këram toog nit ñi dégg nañ baax na nit ñi dégguñu baax na li ko waroon def na ko waaye seen poche seen intérêt lañ fi nekkee nit ñi ñoo war nit ñi ñoo war a dem jaamu ji yàlla te duñ ko bokkaale xam ne ki gën ci nit ñi mooy ki gën a ragal yàlla waaye ñàkk fu laak ñàkk fayda nga yem ci maa la gën sama doom a gën sa doom sama baay gën sa baay loolu yàlla waxut ko yonent bi waxut ko yowmal xiyaam la fay jëriñ nit mooy jaamu yàlla te doo ko bokkaale ni ngay jaamoo yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngale nga tegoo ci loolu amul leneen lu am lu dul loolu leneen luñ la wax dañ lay nax xam naa dinañ ci dellusiwaat parce que ñun si xaram matt lañ nekk bokkuñ ci ñi nga xam ne dañuy toog muy dox salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. aywa salaamaaleykum wa rahmatullah lii nag moom ab laaj la may sàkku ci mbokk yëpp képp ko ci am rek bu fexe indil ma ko euh, sama xaas mu yónnee ma ko wala mu jox ko admin ñi dugal ko ci groupe bi mooy fi nga xam ne sëriñ bii def vidéo bi ni mu defee vidéo bi nii di woote ne seen dëkk Touba bu fa kenn wooteeti te loolu moom kenn du ko ko nangul ndax Sénégal ñoo ko bokk kenn moomut ko te maami kenn moomut ko li am sonkorong mooy am Touba li am Touba mu war a am sonkorong loolu moom na leer ci ñëpp bopp ñëpp rek damay laaj nag sëriñ bii ndax ku ko am na ma ko andil fan la nit a gis mu toog taalibe yi wóor ko muy jàngale li yàlla wax li yonent bi wax ubbi téere ku am na ma ko andil ak fu mu mës a jiitee ci jumaa ak fan la mës a toogee ci weeru koor ci weeru koor ci jàkka ja di jàngal nit ñi wala mu leen di woone weeru koor ngi ñëw nañu waaj yooyu maa ngi koy laaj wala aju màkk di jubli si mu dem di jàngal nit ñi mbiru aj na leen dem leen lii yàllaa ko farataal ci yéen ku ko man maa ngi koy laaj kan ngeen mos a dégg mu ne ak ku ko mos dégg mu ne képp koo xam ne yaa ngi dund alquran sunna ñi may la jàmm tuuba ku ko mos a dégg na ma ko andil ku mos a dégg yooyu muy woote ci yàlla ne ne yonent bi nee na na ma ko andil li ma dégg lépp muy wax intérêt boppam la mbiru àdduna xaalis yi ñu dajale di ko ko andil ñi def ko ñi ñëw def géew wér ko muy wax lu ko neex sama maam nee na sama maam nee na bu yàlla taxawee ni yonent bi taxaw ni ma romb leen fa xasaayit yee ñu doy wàcc fa alquran gànna meesare taxaw ci peggam naan ko bu taxaw doona sëñ Tuubaa du ma gëm yà gëm alquran mu ñu toog di ko seetaan kara taxaw na ko sëñ Tuubaa sàkk yàlla mu toog di ko déglu mosul génn yëy yàbbi te yooyu nee naa ba sonn moo gën a garaaw rey Sénégal yëpp ci kanam suñu borom subhaanahu wa taala yàlla dañ ko war a wéetal duñ ko bokkaale dañ ko war a leeralal nit ñi waaye ñoom loolu bu leeree ci ñoom ba nit ñi nekkatuñ dof alal ji ñuy am lañ yaakaar ne mooy dem te képp ku ragal yàlla yàlla dina la jox dina la ubbil ay bunti xéwal loolu nag duñ bëgg nit ñi xam ko dañuy bëgg nit ñi nekk seen réer gi ñi leen di nax guddeeg bëccëg waaye ku ci am foo xam ne darsu boo xam ne da koy jàngale yàlla nee na yonent bi nee na moom lañ wax ne moom mooy xalifa général moom moo fi toogal maamam moom mooy jàngale te ñi nga xam ne ñooy doon yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn doon ko ci alal dañ ko doon ci xam-xam lim fi bàyyi woon la ñuy comme loolu la fi nekkee na ko andi man dama ko yërëm wallahi dama ko yërëm ndax possibilité yi ko yàlla jox ba pare te exploité wul ko wacc ko fii di woote sama maam nee na sama maam nee na sama maam nee na di ci bokkaale di ci teg waxu bokkaale yoo xam ne bu ci dee fu jëm moo tax ñi nga xam ne mbokkam lañ ak jege nañ ko nañ ko xokk na ko maam tourneel tuub dellu si sa borom parce que mag nga fu mu nekk te euh, sa at yaa ngi dem te am na loo xam ne dara jar ko ci àdduna aduna bi loo fi mën a liggéey loo fi mën a yor ci milliard da nga ko fi wàcc ni gas bàmmeel sulla fa la nga nekk yow yaa ko xam gis nga am na borom bàmmeel yoo xam ne ñu ngi fay dem di leen sànneel xaalis wala bi ñu xamoon la borom bàmmeel ba nekkee duñ fa sànneeti xaalis waaye yàlla baax na yal na yàlla gindi xeetu Sénégal yàlla bi nga xam ne moo am kàttan yal na yàlla gindi xeetu Sénégal ba ñoom ñëpp ñu gis sunna ak alquran alquran sunna yal na leer ci boppi Sénégal yi ba ñii ñoom ñëpp ñu dem bay bay saaru asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh maam maam dem bu ji waxtaan bi ma ci fajar ci maa ngi xalaat ma maam mi nag fàtte naa ko wax ne ko war naa def benn ojo leeral na ki ñuy wax maam Cheikh Ibrahima Fall te ñu tuddee ko sororo gi sororo Touba gi am na ay sëtam yoo xam ne direct sëtam direct lañ ñu ngi fi nga dëkk nu mu tuddee di fàtte naa ko ñu ngi foofu te ñoom wax dëgg yàlla ñi ngay julli ñi ngay woor te teg sax ñi ngay jàngale alquran waaw loolu da nga ko waroon def audio bu ko defee ñeneen ñi xam ko waaye fi mu am na ñu bëri sénégalais yoo xam ne xamuñ ne am na ñoo xam ne ci waa kër maam Cheikh Ibra Fall lañ bokk de deretam nag bokk ci yoon bi te ñu ngi julli ñu ngi woor teg ci nag di jàngale ay alquran loolu da nga ko waroon wax da nga ko waroon bu ko defee nga ne leen nag sëñ moom li mu fi bàyyoon mooy jàng ba pare di jàngale loolu la fi bàyyoon même sëñ maam la fi nekkoon dañ koo soosal lenn li ngeen dindi ko <laughs> bu ko defee <laughs> seen maam mii nekk bi di <laughs> di di wax naan di wax naan xasaay di rek xasaay di rek genn ko déedéet <laughs> sama maam li mu la li mu àndoon ak sama maam di ko jàngale mooy mooy li yàlla wax li yonent bi wax <laughs> waaw bu ko defee yëf yi dina leer ci bopp nit ñi xam naa war ngeen ko war ngeen ko leeral de war ngeen ko leer de waaye nag boo toogee foofu rek di jàngal jàngal Alxuraan di ko jàngale te ñoom jàngale wuñ ko ndax ku ku def lu wuuteeg ku def lu wuuteeg njàngale si ñi toj ca kër sëñ moom jàpp naa ne ci njàngam Alxuraan la woote woon te moom moom kër yi muy toj waa Alxuraan lay toj seen kër xam nga yow mi bu fekkoon si alquran la ñuy woote dëgg dëgg dëgg dëgg dana la woo ñu jox la ci xaalis bi nga xam ne dañ koy indil nit ñu jox la si 4 4 sax ngay dawal <laughs> waaye dañ ko buub rek yóbbu <laughs> jox jox seneen waa ji moom borom mbaxanaam ci ru caram mu dem mu dem almeri ba jënd fa ay këri milliards fa ay naxant rek la ay naxant rek waaye bu fekkoon yoon jaar na ci dëkk dama ko wax sama benn doomu bàyyi bi ma demee Daaru Salaam ma ne ko yow de wax dëgg yàlla bu fekkoonte ne yëf yi moom dafa jaar ci yoon sax war ngeen cee mos nag wax dëgg yàlla <laughs> maam daal defal audio nga wax loolu quoi sa paa bi nag dégg naa ko moom mu ngi wax moom bu génne rek intérêt la moom xalifa général bu génn rek intérêt dëkkam moo ko tax a jóg mais Touba kenn mënta wax a wax a wax wax a wax ba ba mu génn Sénégal buñ ko bëggee nañ fay seen impôt def lépp ñu génn leen ci jox leen ñi nekk seen dëkk bopp Sonkoro itam ñu jox leen ko Casamance ñu jox leen ko comme loolu lañ bëgg dañoo bëgg a Sénégal na na nit ñi toog di leen seetaan rek lu leen neex def kër gu leen neex attaqué fii lañ jog fii si ne dañuy attaqué ngaabo sëriñ bi kenn génnul wax dafa mel ni dafa leen ci encouragé kenn génnul yéy yàbbi ci ay ñoo xam ne ay jàmbur yuy jàngale alquran jàngale sunna ñu naan leen dañ toj sa kër dañ fay waaw <laughs> doo duñ ko gaaw a defati de bon bon rayati mbuum deejë am na yoo xam ne dafa xewi Sénégal maanaam def lu la neex loolu dafa xewi loolu dafa xeewi fu mu nekk nii li am mooy jàngal nit ñi li yàlla wax li yonent bi wax boo jàngalut ay nit nag yar leen ci yar leen ci bu yàlla taxawee ne yonent bi taxaw ne ma romb leen fa ay sama sëriñ mooy dugal nit ñi àjjana yooyu nit ñi dépassé nañ ko dépassé nañ ko parce que sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam leer na ci boppi nit ñi wallahi leer na ci sénégalais yi am na ñoo xam ne nag <laughs> ñoom ku mel ne ku mel ne gànn mesar xam nga moom moom xalaal jaa ko fa teg rek ndeysaan dégg naa sëñ bi woon na ko jëndal ko 4-4 <laughs> ma ne ko wallaay 4-4 bii musiba nga ci am parce que 4-4 boobu moo taxaw muy wax mu ne bu taxaw doon sëñ Touba moom du gëm alxuraan ceetal bii musiba te kenn génnut dana ci ko karaa ñëw taxaw sëñ Touba sàkk yàlla kenn génnut Jóob xasaayit kooku ñu doon wax Jóob xasaayit dégg naa ne moom ci ñu jege woon seen xalifa daal bii la moo fi moo fi njëkk wax ne moo fi njëkk wax ne sëñ Touba sàkk yàlla na ko ma bàyyi la ci biir ñu ne ko kaay tuub <laughs> moom moom xanaa lim sant Diop ba tax karaab bi mu ko waxee kenn tuublawut ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen man seen xalifa général bii wallahi dama ko yërëm dama ko yërëm ndax koo xam ne boo bu toogee di waxtaan moom kese waxu bokkaal yàlla lay wax bu leneen bu dajalee nit ñi nuñ defaree seen dëkk lay wax nañ def nangam nañ def mais loolu ban njëriñ la amal nit nit la koy amal njëriñ mooy li nga xam nga jàng ko xam ko muy li yà li yàlla wax li yonent bi wax nga jàngal ko nit ñi boo deewee yàlla dala koy fay avant ngay dee sax yàlla daf lay defal tirangal adduna tirangal adduna mooy ngëm yàlla te doo ko bokkaale loolu mooy tiranga di gën a mag ci kaw suuf mooy loolu mooy yàlla am ngëm yàlla defal la ngëm yàlla mooy hidaaya loolu bu la ko yàlla defalee deseelatul la dara ñoom nag koom-koom yi adduna moom lañ topp wallahi moo tax sëñ bi bu génn ndax dama koy yërëm sax billaahi dama koy yërëm dama koy yërëm man dama koy ñaanal yàlla gindi ko bala mooy faat parce que lii mu nekk nii doy na waar mooy si saytaane bon benn waay waxoon na ma ko nag bi muy waaj toog noonu na ma gis nga kii nii ñuy waaja a nii bu fi tegee moom gars yi dañu am problème man am naa sama xarit murid yoo xam ne nii ñu baax lañ ñoo xam ne damay daje ñoom jàkk ja même dañ ñëw fajar gi di julleeg yëpp mën na leen yéen wax dëgg yàlla euh, benn ngeen chef yi mais ñoom d'accorduñ ci mbir bi muy wax yii muy wax nii d'accorduñ ci ñi xam xammee ci yoonu murid d'accorduñ ci la sëñ bii di wax wax yi muy wax nii kenn képp ku xam dara doo doo ci d'accord waaw waaye wax naa ko ne ko waxaat naa ko ne ko sëriñ Touba bu ñëwoon Touba moom dana ko fa génne te këri diine yu bëri seen seen bàyyi buñ dellu si waan wala seen maam yi dañ leen fa génne wallahi man damay dem Saalum damay dem di xool la fa nekkoon nga dem tey la fa nekk boo daan jub dëkk bi da ngay dégg muy riir ak njàngam alquran léegi ñi nga xam ne mooy jàmbur yi ñi nga xam ne ñoom bokk ci këri diine yi fenenteeru diine la ñoom ñoom lañ jël ñuy jàngale mais ki jàng alquran di ko jàngale man ko kooku moo war a jiite nit ñi yow jangalo dara lu lu jom nga sant yow kay ci gannaaw nga ra tok mais xoolal ñu jël la bo tax gune yi dañ lay jël laxas la def la comme kay xalé lolu ñu wax surtout tubaab solal la am mbaxanaam curu cara takkal la ay lone di jul pour bo xam bo xamé nit ñi teg la fofu nga nek di bokal yalla rek bokal yalla dafa bon sa kanam gi leer du ci nek waaw yow nak war nga def audio leral nit ñi na len sama mam, man <laughs> sama mam direct la kon sama mam daan julli booy julli bu sa maam daanul julli kay wax dëgg yàlla kon doo julli man dama leen nag ku dul julli nan nga koy dullee ah, dul julli noo koy duddee soroora waaye nag ba nga xamee ne yow yaa ngi julli war ngaa génn na sama maam ci boppam sama maam Cheikh maam Cheikh Ibra Fall mooy sama maam te man damay julli damay woor kon loolu la fi bàyyoon nañ ko def setal sa maam ñoom ñi ngi génn di di setal seen maam génnal di setal sa maam bu bu bu ci am kersa bu ci am kersa yow yaa ngi jàngale alxuraan wax naa la ko na la yow yoon bi nga tegu nii boo ko bàyyi bu la yàlla dimbalee mën ngay tegu man ngay ñëw ndax ma yaa ngi jàng jàng alxuraan dem di ko jàngale di koskoti bi xam-xam mais tasawuf li tax mu bon mooy boo ca nekkee da ngay ñaan yàlla dee xam nga ne góor gi kàddu yi muy wax nii ku ko noonu kaay nekk kaay dundi sunna da eh, du ñëw da yaakaar ne lim nekk moom la woote nit ñi kaay leen sant yàlla kaay leen nangam tijaan yit ñemuñ ko wax dara parce que tijaan yaa nga fële ñoom itam bu ngoon jotee ñu lal seen malaan mi yonent bi day ñëw ñee nga fële Kaolack ne béyu yàlla la xar mi yàlla la kooku kan moo ci corrigé sa morom kenn du ko corrigé ñenn rek ñoo leen di corrigé mooy ñi nga xam ne ay soldaar suñu borom subhanahu wa taala lan li yàlla wax lu yonent bi wax loolu la ñuy dëggal képp ku wax lu dëppoo moom jël ko ku dëppoo ku wax lu dëppoo loolu ñu jël ko sànni fële loolu moo ci am ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm nag démb dañoo xawoon gëmmentu tey ji nag ñu ngi ci xaram matt moo ci dem xam nga ñun bokkuñ ci ñuy toog muy dox ñu li ñuy dundee ñoo koy liggéeyal suñu bopp jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu Cheikh Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax waaw man de ñaari mbir da ci am benn bi mooy dafa jëm ci mbiru lu jëm ci politique politique yi adduna yi beneen bi nag jëm ci sama parti bi nga xam ne ni moom yowmal xiyaam la jëm mooy parti bi nga xam ne moom la fi yonent bi sallallahu alayhi wa mooy woote ci sunnaam si man na ci parti boobu laa nekk moo tax ku ko laal rek damay toog man itam ndax man ci député yooyu laa bokk <laughs> mu ngoog député yi kaasal suñu diine ji ci laa bokk waaye Cheikh Moustapha gaal ga mu nga bañ a mànjaxaar xam nga lu tax eh, sëriñ bi ñi ko wër sëriñ bi ñi ko wër bu fekkente ne dañuy bëgg a doxal yoon du sotti ndax mbir ma la yoon saxut xam nga sëriñ bi bu fekkoon yoon dafa teggul dëkk bi jaar ci digg dëkk ba sëriñ bi tey du fa toog ñi koy laaj ndax sëriñ mooy ki jàng ba pare dem di jàngale konoon moom dafa toog sëriñ boo xam ne la la fa teg mooy sama maam moo moo moo doon jàngale ba jógee fi ñi ñëw ma si sa maam lañ sa maam moo moo doon ku baax yow kon ku baax nga loolu moo dul nattukaay ñaareel ba mooy nit ñi nax gi ñu leen nax moo gën a garaaw fuuf ñu yóbbu ñu yóbbu élection yi ne dootu amati sax Touba loolu ci la gën a tuuti ci lañ leen nax la ndax bul fàtte ne gëmloo na nit ñi ne leen Serigne Touba dafa yor quota boo xam ne nii boo ko gëmee boo ànd moom moom moom maanaam boo gëmee yoonam wi rek yow aljana nga jëm waaw. murid ya Tijaan yaa ngi fële ci pegg ba duñ ko corriger parce que ñu ñi ngay lal seen malaan wax ne boo duggee seen tarixa bi ba yowmal am ba say sët sët sax aljana leen jëm ñeneen ñaa ngi fële na xar mi yàlla la béy wi yàlla la kon amul ku leen corriger ñoom seen biir kenn ku ne am na looy def ñi gëm loo leen na ay nit ñoo xam ne ñu ne leen du ngeen julli den woor xalifa général bi di génn démb di wax ne li nga xam ne mooy élection bëggatul mu am Touba moom moo taxaw ne Baye faali yi seen Baye faal ak jagle la nañ leen ko bàyyee te ci diine lay waxee loolu lu jaroon taxaw laaj ko ko la ban firnde nga ci am kenn laajul ko ko dañ ko bàyyi noonu mëf mëfal parce que diine du waa mbàkke mbàkke yi ñoo ko moom wala waa Cissé diine diine yàlla la mu wàcce ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te dañ ko bàyyi noonu mëf mëfal ku mu jàll Baye Fall ba léegi am na ñoo xam ne Sénégal duñ julli duñu woor ci yoonu murid rek la am loolu dañ ko war a seppi seen yoon wi wax leen ne Serigne Touba jàngalewul lii moom ngi doon julli ba dem ba xam ne dafa lal lal daram ci géej kooku wax dëgg yàlla bëgg nga julli ku ñëw nag ànd ak yow ne doo julli te ay sëtu maam Cheikh Ibra Fall ngi fii ci groupe bi dañuy julli dañuy woor dañuy dem mag kon mbir bi fu mu jógee nañ ko seetaat ah yow ki la jiite bu taxawee ba pare di woote ci bokkaale ki nga xam ne mooy porte problème di woote ci bakkale ndax Bass Abdou Khadre dégg nañ ko fi mën a bu ngeen ñëwee dem leen ci bàmmeelu Serigne Touba ba ngeen ñaan fa seen soxla di ñaan Serigne Touba loolu sax la wax bu ngeen ko ñaanee seen soxla mu may leen léegi ki nga xam ne day xërtal nit ñi ci bokkale loolu moo gën a bon fuuf parce que nit ñi bu ñu terewoon ñëpp sax ñu woote Sénégal moo gën a woyof maa ngi dégg ñu naan Walf Fadjri dañ ko doon dajaleel xaalis xaw ma leen wéef dem wéef wéef nañ ko daggal mën na leen li leen wéef def li leen sëriñ ci dafa ko gën a garaaw te yéen a ngi ne moo tax xàmmee ko parce que nit ñi dañoo xàmmee njëriñu adduna ak alaxira ak seen njëriñu adduna kese Walfadjri gii ñu ne dañ koy tëj ci xaafar seen xaafar seen xew-xew yeeg yu mel noonu ñu ne bañ demee sëriñ bi jël juróomi million jox ko ma ne sëriñ bi loolu rek la man sëriñ bi mën na jël ci xaalis yi nit ñi joxe ay milliards waaye jàngale li yàlla wax li yonent bi wax du du la ko def moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu wax dëgg la moo doon wax ne man yuridillahu bi xeyran yufaqihu fi diin wallahi dëgg la ndax gis nga bu la yàlla na ci yiw daf lay déggloo diine waaye boo déggul diine doo mën a def loo xam ne dafay dëppoog diine sëriñ bi looloo ko jàpp ñi nekk ci ñoom nag ñi ko wër nag ñooñu seen intérêt la parce que ñoom santuñ sant bu cher la fa boole mooy sëriñ bi nekk fa sëriñ bu ñëw am na gàngoor goy indiwaale dama ne mbiru sëriñ mbiru sëriñ bokkut ak mbiru politicien politicien bi mën naay dem ba wàcc mu jeex mais sëriñ du jeex parce que ñoo daq am ñoo dàqa jur da ngay gis sëriñ xam ne dana ñaar fukki doom ak juróom ndax juróomi soxna juróom benn dañ koy takk ba juróom ñaar takk ko ci ñoom ñoom lu leen neex def ko bu ko defee ñooñu lu ñu ko ponkal moo xam ne liggéey la gor looy yet lekk ganaar ñi rey la ganaar ak saalum saafal la ko ngay tëdd di nelaw nooy def ba doo am doom yu bëri diine lislaam jëriñoo ci dara amul lenn loo xam ne nii amul benn xalifa général boo xam ne nii taxaw nga ci di Sénégal a ngi nii barki Demba Ndiaye dafay tàkk bay bëgg dem ci doom benn xalifa général génnul génnul def annonce biñ fi dalee ci kaw Touba lañu commencé génn di wax mais loolu mooy lan diine boo fekkee dañ la far ci diine da ngay génn di wax te yàlla tax bu la kenn teree wax bu la kenn teree wax li nga war a wax na nga ko wax fi nga ko war a waxee nanga ko wax bu dee gouvernement bi ngay waxal wax leen ko ci suuf bu dee population bi ngay wax waxal génnal ci télé yi wax ak ñoom ne leen àndal ak dal waaye kenn defut ko ci seen poos moo leen fa téye Touba leneen dana ñëw lu mooy ak lii feeg ñi ngi fa nekk dafa nekk di woo nit ñi ci bokkaale yàlla feeg ñu ngi fa nekk jàngalekati alquran yi ñi daal seen kaw feeg ñi fa nekk ñiy woote alquran sunna ñi dal seen kaw leneen na ngi ñëw lu gën a garaaw lii nañ xaar parce que li li li li leer dafa leer waaye jël li nga xam ne mooy dëgg yàlla gi teg ci teg si sa tànk loolu yàlla du ko seetaan wallahi yàlla du ko seetaan parce que jël ay nit teg leen na ñoom ñooy yàlla jël ay nit teg leen ne ñoo gën nit ñi ci ci lu dul loo xam ne seen tey bakkan la ki gën ci nit ñi yàlla xam na ko wax na ko ki gën ci nit ñi mooy ki gën a ragal yàlla ñi jël bëgg a jël ne ñi nekk ci kër yi nga xam ne ñoom ñoo sant si ñoo sant Mbàkke ñoo sant Jóob ñoom ñoo gën ñeneen ñi loolu amul ci diine lislaam wallahi amul ci diine lislaam li mu xam mooy ku jàng ba pare dem di jàngale tuubaal leneen dana fa am lu mooy lii dajji nañ taabal yi gune yi xëy nañ révolte dem nañ ci leneen loolu yarut nit ñi li leen di yar mooy jàngal leen li yàlla wax li yonent bi wax Sénégalais pour ñuy dund dund bu bu kalba il faut que dund li yàlla wax li yonent bi wax président bu ñu fa mënta indi nii lay demee yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa képp ku mu jox lam la jox yaa ko yelloo yàlla li ñu yelloo moom la ñu jox mooy sëriñ yoo xam ne duñ jàng ba pare jiiti ñu yoo xam ne mel ci ne loolu ci njiit yi noonu lañ loolu lañ yelloo lii lañ yelloo ci diina amul leneen loo xam ne moom lañ yelloo parce que nit ñi ñoo ne kaay leen ma nax leen ñi nangu leen banam nit ki boo nangoo ñi nax la ñi nax la yow sëriñ boo xam ne jàngalul la jàngul deful dara lu dul jël sa xaalis di jël ay milliards di pakati di yóbbu loolu foofu mu am Touba leneen a ngi ñëw lu mooy ak li xew banam li bu loi amee loi bi dafa war a waale ci Italie waa dafa war a waale Sonkorong waale Touba waaye Touba nañ la ñuy dàqee ne kenn du fa woote ba pare bàyyi waa Sonkorong moom dañ fay woote Touba lu gënee Sonkorong lan la ko gënee moom laay laaj. Monsieur Ousmane demoon naa bay tàggoo de waaye yaa ngi bind ne réew mi ki nga bind nag ñi mu ma tudd turam <laughs> mi. diw yàq na ko man nag dañ may tere ma dal ci concours quoi ñun moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy tere loolu <laughs> waaye xam naa ne comme sama njiit la ñu ma tudd turam yow nag ñu ma ko tudd waaye ni ngeen ñemee tudd turu sëriñ tudd njiital réew mi nii waroon ngeen am sañ sañ nag tudd njiital ñi nga xam ne ñooy xalifa général yi parce que ñee population Sénégal ñoo leen fal ba pare yàlla jox leen gëdd boobu muy ay buur yoo xam ne ay jullit lañ mais sëriñ si kenn falul leen ñoo fal seen bopp maanaam amul benn xalifa général boo xam ne ne diine lislaam moo la fal fi nga nekk diine lislaam ki muy fal ci sëriñ mooy koo xam ne dangaa jàng xam ragal yàlla di ci woote loolu mooy sëriñ di ko jàngal nit ñi amul benn sëriñ boo xam ne fii mu ngi fii lii ma lay wax ni nekk ci moom du xalifa général bii du beneen du beneen amul xalifa général bii génn di wax démb na Touba nañ ko bàyyi dootuñ fa def élection dañ fay dàq yooyu waaye booy dàqee nit ñi ba pare ne kenn du fa woote waaye bàyyi fa ñuy bokkaale yàlla te bët ba set nga romb ay borom këll yoo xam ne duñ julli duñ woor ay magu jëmm te nekk na ay julli lañ ah dëkk boo xam ne oto bu fa dugg oto yaa ngi fa yoruñ marticulé di daw di def lu leen neex forot bu fa dugg rëcc nga ngeen nañ génnee élection yi bàyyi fa ñeneen ñi mais loolu xel mënu ko nangu dëkk bu ñu bëggee mu naataange yàlla li mu wax du ci arrière te la mu wax dana ko def ku bëgg sa réew naat da ngay ragal yàlla moo ciy jiitu ku bëgg réew naat dañuy jàngale sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci dëkk ba bu ko defee yërmande dañuy ñëw waaye nit ñi bu ñu xamul yàlla duñ ko jaamu nit ñi bu ñu xamul lan mooy yërmande duñ ko duñ ci jaar lii moo am sëriñ si parti politique yi ñoo leen gën fuuf kii ngay bind di wax noonu moo gën xalifa général yi yàlla xam na ko parce que ñoom la leen war ñu ngi ko def mais xalifa général yi ñi ngi nax nit ñi aduna ñi ngi leen di nax àllaaxira parce que ñu ngi leen di wax ne gis nga fii ay nit ñoo xam ne ay quota la wax ne la ñuy jël ci nit ñi dugal leen aljana nit ñi sénégalais yi dañoo bëgg dañoo bëgg dañoo bëgg dañoo bëgg jaamu yàlla mais nit ñu di leen ci nax yàlla nag mi am kattan mi suñu borom subhanahu wa taala mi téye suuf asamaan ñu ngi koy ñaan rek yàlla na yàlla dimbali ñu ba uññi sutura bii bi bi sëriñ ci nekkee nii di nax nit ñi yàlla yàlla xaawi seen sutura ba nit ñu gis na ay caaxaan a tàppale ci lañ nekk ba dëgg yàlla gi leer ci boppi nit ñi yàlla mën na ko suñu borom yàlla nañu ko defal يلا يلا داف سي خولي سينغالي باغ يلا يالا مي تي سوسي تي اسمان والله مو في مو في اندون ماك نيون تي مولاي في جيلي تا داني في جيلي ني تام بامو لير سي نيون نييب ني خام لول بوبو با ريك سينغال غو نيه لا نيام مي سينغال ديكو ياك موي سيرين والله سيرين سي كو ياك لنن ياك كلو سيرين بريزيدان بي غاي بيندل ci kër yi la génne keneen ci kër yi la génne te kër yi dañ leen war a jàngal seen diine ñi dogaale nag nit ñi ñooñu lañ war a waxaat booy sëriñ sëriñ si ñooy addu kalpe ci nit ñi seen pas-pas mais nit ki bu amul ngëm-ngëm ci moom mala lay doon nit ñi li leen sëriñ si li leen gënal mooy nit ñi nekk ay mala rey nañ ñaar ñaar fukki nit ak nangam Sénégal benn sëriñ gënul wax biñ coppatee Touba rek ñu commencé fëll fëlli ah comme comme comme comme bët bu sëb bi ni ñax mi di def ci àll bi ñu commencé wàcc sax ci di wax parce que dañoo laal seen intérêt mais li nga xam ne mooy intérêt diine ji du leen jaral wax fañ tëdd la ñuy tëdd moo tax eh, yal na yàlla boole ñuy gindi